actualité bi ñu fas yéene waxtaane li nga xamne moy donc ki di keneen ku dul donc ki di donc ah yaay yaay yaay gars yi tey waa ji toj na fi du keneen ku dul donc Pape Ousmane Sakho bi nga xamne tay def na yëfu Sakho Sakho gars et on va parler également de son but stratosphérique mais d'abord gars ki nga xamne moy donc ki di Marquinhos Marquinhos donc gars yi duggoon këram agressé ko agressé jabotam donc ñaar ñi tej nañ len prison euh, ferme lo dal le tribunal bu France dali jël li nga xam ne mooy donc ndogal ci ñaar ñooñu mais aussi li nga xam ne nag mooy donc ñii di évolution yenn club yi foofu noonu ca Ligue 1 française li nga xam ne nag mooy club yi jàpp na ñoom la ñu gën a baax ni ñu leen gérer bokk na si mooy relance Stade Rennais Toulouse FC Lorient AS Monaco lii nag ah, benn jàngat la rek bu yenn spécialiste def du loo xam ne aussi probablement c'est constant li nga xam ne aussi jàpp nañ ne mooy euh, cinq clubs yi nga xam ne ñu la ñu gën a moins géré nee nañ OL Nice Nantes SCO Angers Paris Saint-Germain loolu comme je dis encore c'est tout toujours subjectif mais en tout cas jàngal la bu ñenn ñi di def yéen nag la moo ci seen xalaat Premier League bi nag gars yi li mooy classement Premier League bi yéen xam ngeen ko ah. donc Arsenal moo nekk am 47 points top ci Manchester City Newcastle Manchester United Sports de Tottenham et Fulham donc euh, ñii di Manchester mën nañ ñëw nekk deuxième position même troisième vous fekkee que nañ ki nga xam ne donc les sports de Tottenham qui nag pas Ngolo lo golo ñii di waaye donc Chelsea jàpp nañ ne fii ak fin février début mars daal dina mën a disponible à 200 pour aller rejoindre li donc c'est équipe bi mën a jouer ak ñom lool dal lañu yakkar yaakaar ki am dana mooy Garnacho nenañ nak selon le principe wa Manchester United am nañ accord ak mom ba 2029 yokku salaire am la pépite donc mancunien bi nga xam ne Manchester United dañ ko daal di blindé pour mu daal di fay bañu jugé Manchester United la ñu des ak Eric Ten Hag mi wax na ci nga xam mo donc kii di Anthony Martial hein donc actuellement il n'est pas encore au top de sa forme pour revenir wax na aussi ki nga xam donc joueur bu ci Wigors nee Wigors bu ko gaay jël ak yakkar né joueur bo xamné day soxla décentré mën na importe eh, plutôt indi leneen ci jeu bi lu dul eh, jaay direct di mbëkk wax na aussi ki nga xam ne mooy donc kii di Nacho même vous faites nee Sancho plutôt nee na bu fekkee Sancho sax wér pour l'instant, instant du coup, dugal ci terrain bi tant qu'il n'est pas opérationnel Jadon Sancho loolu qui ramène donc qui dit Eric Ten Hag moo qui wax ki nga xam également mooy bokk ci yenn kàngam yi foofu ci Angleterre notamment du côté de Manchester City di Pep Guardiola nee actuellement le problème n'est pas qui dit Haaland Le problème est du Haaland gars yi ñoo war a nan la ak également du côté defal ay passe. et aussi c'est un problème collectif nee na du mbiru benn joueur actuellement aussi ñi ngi wax ci yenn joueurs yoo xam dañ ne ñoom fi mu ne nii euh, boo mayu dañoo bëgg am envie quitter Manchester euh, City loolu daal gars yi ñu ngi koy wax turi nag bëri na on parle de Gundogan on parle de beaucoup de joueurs mais ki nga xam ne mooy donc kii di Pep Guardiola mom né pour l'instant donc du wax a ci loolu parce que amagut ki xamné également moy Alexander Callens mon day dem ci Girona ah te Girone lay dem du côté donc euh, mom mi nga xam ci MLS la jógee donc Alexander Callens actuellement mon la gars yi di wax aussi mais également du côté de l'Espagne c'est presque fait quasiment bouclé hein pour ki nga xam donc qui dit donc Memphis Depay day dem donc du côté de l'Atlético de Madrid hein donc pour 3 millions à 4 millions loolu da la gars yi wax fini mom nii moom fii ci guddi wala ëllëg war na ci yone def li nga xam moy visite médicale Alam ki nga xam ne nag mooy donc Carrasco Yannick Carrasco bi ñu ne Barça ko bëgg def ko priorité Yannick Carrasco moom Barça ne nañ ba léegi ñu def négociation yi pour wala hiver bi di ñu daal mën recruter en tout cas daal seen gis-gis la et du côté également de Villarreal ki nga xam ne mooy Danjuma bu fekkee ne ñu ngi koy annoncé avec insistance du côté de Everton parce que Everton daf ko def ci priorité pour mu daal di ñëw renforcer attaquam Danjuma actuellement gars yi jëlagul benn décision moom ak ki nga xam mooy donc agent wam ak aussi waa Villarreal li ko waral nag mooy que ne Danjuma dem na Angleterre gis na club yi nga xam ne ñoo ko bëgg waxtaan ak ñeen ñi nga xam mooy dirigeant yi mais bu mu fa jógee aussi dafa dem fa nga xam ne nag mooy donc ca France parce que am nay club yu nekk ci France aussi

muy Monza Marseille aussi dou euh, metti lu ni mel parce que ñom dañu bëgg a wu ci xam moy donc Paul Lerola donc ki nga xam ne nag mooy donc kii Yann Sommer wax na len ko c'est officiel Yann Sommer c'est officiel pour Yann Sommer gars yi li nga xam ne nag mooy jëm ci li nga xam ne mooy donc nekkam ci Bayern de Munich li wax la gëna a li gëna clair sax moko ko soxnaam jamono ji ñinga fofu non ci Bayern pour def sen visite médicale momi tay wala suba dañu officialiser demam mais gars yi bojo bojo yee seen baay ñëw na Pape Ousmane Saro, Megaï, qu'est-ce que Aliou Cissé attend pour convoquer Pape Ousmane Saro bu Nagaï, na gars yi Bouyage day niroog bu day non championnat bi di mais gars yi question de championnat question de talent là limite muy Pape Ousmane Sakho di Dougal, question de championnat question de talent là. et but bi Dougal aujourd'hui c'est un but c'est hors de la surface de réparation donc un but c'est digne d'un grand jour. exceptionnel goal bi ni qui gars yi waxee ci débat aujourd'hui. Pape Ousmane Sakho aujourd'hui donc il a fait un match encore exceptionnel et il a marqué un but stratosphérique moom it jaay taar mais boo mënee football da ngay jaay taar moom Pape Matar Sarr yam moom booy jaay taar la ah booy jàmbaar la et tout booy la et tout mais Pape Ousmane Sakho il est talentueux il est exceptionnel Bubi, le Dougal, dugal xool leen fi mu toll daal koy eh, donc aujourd'hui il a encore fait un match exceptionnel il a marqué un but digne d'un buteur Bubi, c'est sax gars yi bu ñu ko defaatee plus beau but de l'année bu mu leen bett ah bu ko parce que moo ko jëloon daaw bu ñu ko terrain, ren bu mu gars c'était les informations que je voulais vous donner tout à l'heure on va faire le débrief de la rencontre du Sénégal et de l'Ouganda woy leen di like woy leen di abonnés on, est, on avance ensemble. Diagen Diouf.